أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيذ بك والذرية من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يهدرون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفره بهذه الأمداه وبشر بها وجميع أحبائي صلى الله تعالى عليه بآله وصحبه بوكي جلدي بوكي طالبي bokk yi nga xam ne ñoo baaxoo di ñu bàyyi xel saa yu weer amee ñaar fukki fan ak juróom-ñeent fii ci jumaa ju mag ji nekk tubaa di dëkkub Cheikhuna Ahmadul Khadim nooñu ko baaxoo defee di ko ànd ak commission bi nga xam ne ñoo koy saytu ci ndigalul Serigne Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa ci njiitul Serigne Mouhamadul Mamoun Bousso waaye sëriñ Abdou Diop imam ànd ko ak waa daayira Muxaddamatul Xidma ci teewaayu sëriñ Serigne Abdoulahad Bousso Makhtar ak bokk yi mu àndal. waaye ci kàddug sëriñ Bachirou Mbacke mu sëñ Abdoul Khoudous nekk ca Darou Mokhti waaye sëriñ Moudou Mbacke si mi nga xam ne moo jiite représentant xalif général des mourides yi ak commission bi nekk Dakar waxtu wu ne danañ baaxoo di àndandoo di ko taatan suñu taatanee ba waxtu wi jot it danañ jokkoo ak sëriñ Touba Cheikh Mamadou Mountakha leeral ko li nga xam ne moo jot a xew ginnaaw boo xamee ne julli nañ timis ba noppi sëriñ Abdou Diop imam dana ko yéene ci jumaa ji wax ne ko ci xam lu wér nga ñëw yëgle ko. suñu noppi nag dañuy àndandoo jàkkaarloo ak tali alaaji Babacar Kébé Ndiouga yàlla na suñu borom dooli njéggalam ak yërmandeem waaye xam ngeen ne tey Touba day taw ñu ngi jàkkaarloo ak kër Serigne Saliou kon damay bàyyee kaddu gi ak Serigne Abdou Diop imam mu leeral ñu li nga xam ne moo bàyyi ko ci commission bi nekk Touba. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu waaw ni ko sëñ Fallou Galsi la waxee rek mooy nan ko baaxoo def daan def nañ ko mooy ñaar fan ak juróom-ñeent weer wu ne danañ danañ yebal ci jumaa ji ñu yéene fi wax ne ñu séntu sëñ bi nee nañu weer yi te lu ci waaye xam nga ñëw yëgle ko bu ñu ko defee it yàlla dogal na day taw waaye te fi fi baaxoo toog mu ci biir kii bi ni ngi fi toog noonu ma wax jàkkaarloo Kër Saliou léegi di séntu weer yi bi ñu ko bi séntu weer yi yàlla dogal na noo ngi jokkoo gox yi waaye mboolem gox yi ñi fi téléphone yi ñëpp dañoo wax ne gisuñ ko te li ci ëpp ci gox yi dafay taw bi defee noonu ba waxtu wi jot na nga xam ne sone nañ gee ci leen jog jog ko kër si si si muxta kër kër si muntaxaa yëgal ko ko mu yëgle ne kon manis naa yëgle weer yu feeñut kon ñu xam ne weer yu feeñut alarba alarba suuf ji mooy mottali weeru tabaski bi kon ñu xam ne alarba suba ji mooy mooy mottali weeru tabaski bi tabaski bi alxames doon benn fan kon nag ñoo ñeen ko ñëpp xam xam ne léegi weer yu feeñut léegi suba dañ koy dañuy mottali fanweer ci weeru tabaski bi ginnaaw suba di alxames di benn fanu tamxarit bi kon na ngi ñaan sëñ bi yàgg lool te ànd ak wér te sant mboolem ñi ci jàpp ñëpp ci waa Moukhaddamatoul ak rajo xeeti rajo yu fi dikk lépp buñ ci tuddee sëñ Gërës si la mu daanaka lépp dugg na seen biir asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu waaleykum salaam kon ñu jàpp ne alxames mooy doon benn fan ajjuma mooy doon reerub tamxarit ba sët di gaawu di fukki fan yi kon ñu jàpp ne bis bi nga xam ne moom lañ baaxoo di ko def reerub tamxarit bi mooy doon ajjuma lu mel ne ñu sant jaxati ñu ngi koy bàyyi xel ak sama mbokki Touré yi waaye kon samedi mooy doon bisub ñaan bi kon ñu jàpp ne alxames mooy doon benn fan incha allahu rabbi lii mooy kàddu yi nga xam ne moo bàyyi ko fii jumaa ju mag ji ci ndigalul Serigne Touba Cheikh Mamadou Mountakha ànd ko ak commission Saint Weer ak waa daayira Muxaddamatul Xidma wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.